Abonnez-vous sur votre chaîne TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. ok Mama Lamine maa ngi ñëw léegi maa ngi ñëw léegi Mama Lamine maa ngi ñëw nee na Mama Lamine nee na maa ngi nii frère maa ngi seetlu baax Mama Lamine allo. Cheikh Omar. Blindé maa naka mu. waaw sant yàlla bu wér. naka parcelle. parcelle mu ngi nii rek sant yàlla bu wér a wér. yee Blindé naka koor gi. waaw ñëpp ñu si jàmm alhamdulilah baal ma waay. baal naa la baal ma àq yàlla nañu yàlla boole jégal teewe déwén yu yee amin amin. yow amaloo kenn àq ñun ñoo la amal àq <laughs> ñoo far bro ñoo far. si laa nekk nag. maa ngi siyaar bu baax maa ngi kóol maa ngi kóol. waaw alhamdulilah. ma bëggoon ñu waxtaan tuuti ci koor gi ak nooy entraîné ci koor yi nga xamante ne da nga jëloon avance déjà waroon a bëri yàlla yàlla weddi alors nan ngay nan ngay nan nga nan ngay defee ci koor gi ak confinement bi entraînement yi. waaw onze billahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu santee yàlla julli si yonente bi di gërëm suñu ñaari waajur di jaale Modou papam boobu gaañu yàlla na ko yàlla xare àjjana suuf ayof si kawam di ñaan mbas bi nekk Sénégal yàlla dindi ko fi ndax metti na trop. Mm-hmm. muy Covid 19 bi coronavirus bi. waa Cheikh Amar ni ñuy dundee entraînement bi nii instant metti na trop nag. Eh. waaw parce que munoo entraîner fenn. Mm-hmm. te mbëri ñu ngi liggéey loo xamante ne munuñ ko liggéey si biir kër yi. dëgg la. ndax ku si amu woon matériel sa biir kër da nga doon génn di entraîner ji. Mm-hmm. kon fii maintien rek moo fi ne maintenir forme bi. Hmm. kon ak weeru koor bi nii tamit xam nga mënoo di xiif hmm. c'est sûr. benn séance rek nga mun a def mooy avant wu après. di waajal combat yaa ngi nekkoon di waajal combat sa diggante ak euh, bu ma juumul euh, nu mu tudd. mën nga ñoo wax tuuti lan moo nga jël Bébé Birahim. <laughs> bébé Birahim damaa xam ne adversaire boo xamante ni moom moo ma soxla woon sax. ah bon. bébé Birahim moo soxla quoi. moom moo soxla woon. moom moo ma soxla xam ni tamit champion la bon def na si làmb loo xamante ni xam la te kenn du ko naataamle lu mu def si làmb ñëpp gis nañ ko ma xam champion la te war naa mën a bëreeg moom. Mm-hmm. ndax moo ma jiitu si làmb man damaa privé ba fekk ko si làmb liggéey ba toll fa. Hmm. kon damay ñaan yàlla romb ko tamit. Hmm. voilà. d' accord yow yaa yow ak Tapha Mbeur yéen bokk écurie bu ma ak Dame Sène. non moment bu toll ni maag Dame Sène bokk ñu écurie. ok. la Mbeur laa bokkaloon Tapha Mbeur laa bokkaloon écurie. soma defet yi ñaari defet yi ñoo ma si gën a metti. Hmm, tax. waaw parce que dama lay dama kaa mun mu daan ma. muy kan. muy Balla ak Youssou Ndour. Hmm, waa géej waaye kon dañ laa sonal quoi yow. non non Balla Gaye junior jàmm gën la dëkk. ñaar ñooñu ñoo ma gën a metti quoi. parce que damaa amoon poids bu ma jëloon poids bi baaxul entraîné wu ma contact ma. ma jëloon combat bi Balla Gaye junior daan ma si di dix jours ma bëre si Alioune euh, Youssou Ndour waaw combat yi ma am moment buñ toll nii ba mu si jógee ba léegi am na lu mu def lu bëri si man. sama mhm, mhm. encourage tamit gën nañ toogaat gën gën gën ma ñax mhm. ku si mel ni sama mag tamit buma ma bokkal ndey ak baay Ablaay teg ma si ay loxo yu wóor. d'accord yàlla tamit suturaal sama staff bi liggéey loo xamante buñ toll nii combat lu rëy rëy munuñu jaaxal. d' accord d' yaakaar naa yaakaar naa lu am solo la lu am solo la aussi mais ñenn ñi dañuy gis ni conflit yoo xamante ne la mën nañ di problème parce que am na ñenn ñoo dañuy bàyyi yi te entraîné ndoog ñoom mais est ce que après du indi le nañu ba parcelle ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. alors ngeen di ñaari combat yu mag mën naa wax ñaari combat yu mag a mag. Mm-hmm. combat royal la Modou la lu ñu suñu grand la dañ koy jaalaale papam boobu noonu yàlla xare ko àjjana mooy suñu baay góora hmm. Modou kenn du ko wax bis ndax bis bu nekk am na ko kon moom dañ koy ñaanal rek hmm. yàlla may ko ci lumuy muy dugg quoi ndax mooy suñu champion Ama Balde laa wax Ama Balde Modou est-ce am adversaire bu mel ni Ama Balde. Modou am na ñu gën a garaaw Ama Balde. laa wax ni. waaw. kon yow pour yow combat boobu non nan nga ko cinquante cinquante la wala. non non c'est combat boobu soixante dix pour cinquante. soixante dix ngay jox Ama Balde euh, ngay jox Modou jox trente pour cent Ama Balde. cinquante laa koy jox. non boo joxee soixante dix. waaw. trente moo des. trente yooyu la Ama moom. Ama Baldé moom moom trente yi. waaw bokkul. Ah, gis nga Ama Baldé gis Ama Baldé bu baax. affaire yi du rëy quoi. nit ki mën na mën li nga mënul. Modou mën na bëre. mën na xeex. am na fit. te bis bu nekk am na ko bis bu rëy bu nekk am na Ama Baldé nag champion la mbër la jàmbaar la. d'accord dem mu dina am ci ay point yu mu ko rawee quoi. dana leer alors Siteu Siteu Papa Sow noo ko gisee. waaw Siteu Papa grand tam kooku tam kenn du ko wax bis ndax ku mën bis la. Mhm. dañ koy ñaanal yàlla bis boobu mu jëm yàlla ànd seeg moom. Siteu lay bëree daal sa waay Siteu Siteu. su fekkee bëre. waaw. Papa Sow moo ko dàq bëre su fekkee xeex Papa Sow moo xeex te combat bi jaral nañu loo xamante ne moment buñ toll nii dañuy ñaan yàlla rek bis jot yàlla may ñu wér ak wér la ñu yóbbu suñu mbër Papa Sow yàlla may ko ndam. waaye si lu bu fekkee caag yoof gën a yi nga xamante ne moom mu ngi fi. maman nee na lan maman Diouf maman Diouf maa ngi siyaar naka mu. enfin Thiat. bro. maa grand promoteur Fallou Ndiaye. alors que Thiat <clears throat> yow yaa ngi nekkoon yaa ngi nekkoon avant avant avant ñoo dugg ci koor gi avant euh, ñuy def euh, li nga xamante ne moom mooy couvre-feu beeg yooyu di arrêté dajaloo bi. yaa ngi victoire bu nice. yaa ngi victoire bu nice. Uh-huh. Euh, Thiat mu nekk. sa deuxième victoire contre Siteu nan nga génne ci combat boobu nan liggéey rek comme dab rek ànd ak suñuy mbokk xam def li ñu def ñëw prouver quoi. Mhm. noonu gis ne ki nga ne moom mooy euh, dafa taxawoon préparé ko mu ñëw ak physique bu nice mais mayoo dara loolu lan non ñun xam na li ne si ñun te bii li ñuy liggéey xam na nga quoi. Hmm. ñu bàyyi ku ñu jàppanteel nga xam ne jàppante nga xam mbër quoi loolu moom yàlla hmm. moo ñu ko may. no ànd ak samay grand yu bëri rek xam ma nekk lu ndaw nag. Hmm. et puis ma gis ñu leen daan xam nga loolu moom ma dugal si làmb quoi après si la fipp nag xam ni man dama war a doon mbër xam nga commencé bëre nag commencé daan quoi moo tax moo ma dugal si làmb. mais mais mais Thiat est-ce que yomboon na par rapport ak famille bi est-ce que nangu woon nañ nga bëree. non non non non sumay parents nangu ñu woon. ok sumay parents nangu pour nga bëri quoi ba dëgg yàlla. alors nga génn foofu nga génn nga génn ci combat commencé ciblé commencé ciblé Thiat luñ ko wax mu ne Mama Lamine Thiat luñ ko wax mu ne double moteur fan nga teg woon non dama xam ne maa man rek. bilaay dama ah, xam man man maa leen dàq bëri maa leen doole. non mais Thiat est-ce dégg li o wax Mama Lamine laa wax de Mama Lamine. <laughs> est bu baax bu baax dama ngay wax dal de Mama Lamine gis na li def. gis na Mama Lamine li mu def def kan. Jokal euh, euh, barki Demba euh, ban faa. fu mu toj. baat ak tontu la ko. Jokal yàgg naa parce que doom ah. ok ok alors Mama Mama Lamine danañ ko jël danañ jël léegi ci kanam mais li mu jotugum dégg muy wax nee na ko kenn say wax. nu mu wax. dañu naan ko kenn wax say wax waaw. <laughs> am na si droit. mais bu dul fii di fële rek yàgg yéeg dama koy daan ne bu fii di yàgg yéeg dama koy daan incha allah. barke Mohamed bu dee mu ngi ci làmb rek. waaw may prouvé may prouvé. bilaay ji laa ko daan incha mais lan moo tax yow nga jël sa bët yi rek teg ko ci Mame Malamine yow. non dama xam ne ay paa la ñuy bëreel moo double moteur. topp paa yi di daan rek yaakaar ne ay mbër te duñ dara. <laughs> mais double moteur ay paa la fi daan moom léegi ma jéem a xool ma jéem ma dellu si ci yow maa si ci yow léegi. waaw mais gaynde maa ngi jox ma baax naka dóori bàyyi. man damaa bokk ak booy <laughs> may champion yow ma nii. ci loo nekk. kon champion day feeñ ci collection bi. waaw champion feeñ ba ci collection sa collection baaxul sa bër des de. mais <laughs> maa lay siyaar. di la si jàmm baax. <laughs> ah. dugal Maama Lamine li ko dugal bëree man mënuma la ko wax sax lu mu la ci wax rek xam na lu des parce que nous sommes ay xale lañ nekk ci benn gox boo xamante ni nekk noonu fa suñu mag suñuy frère ñun ñëpp nekk fa xam nga di bëree di bëree ñuy topp seen ginnaaw xam nga di leen support ba yàlla def say virus bi dugg nii rek comprendre ñu ne pourquoi pas. mooy loolu ci lañ ba yàlla defal ñu lii loolu dañ ci sant yàlla rek parce que jàmm bu ne sabab lu nga am rek li ci des suñu borom a koy motal ñun dañoo juddandoo ci benn koñ yarandoo màggandoo di xàccandoo di dóorandoo ku ne benn yéene bi nga am mooy maanaam li sa morom nekk nga gën ko bëgg. li sa gonoom sa moroom bëgg nga gën ko koo bëgg lim la yéene nga gën ko koo yéene boobu noonu moo ñu saxal tey jii ba tey buñ tuddee Siteu tudd Abou Ndiassé tudd ay Mama Lamine Balla région Thiatou Fora loolu lépp famille la quoi nous sommes des familles waaw loolu mm-hmm. yàlla moo ko def comprendre moo tax tey tudd bu ñuy tudd nii waaw ñu la parfait quoi da def rek te xamoo sax li ngay def yàlla mooy dogal te àndul du ni da koy sàkkul boppam. Mm-hmm. ànd yàllaa koy sàkk. maa ngi ci onze combat. waaw. Euh, neuf victoire deux défaites. deux mm-hmm. victoire yooyu ban moo ci gën a neexagum pour le moment. <laughs> li may gën a neex ci sama combat yi mooy sama combat man ak euh, Youssou Ndour. Youssou Ndour. Mm-hmm. ca tey buntu ah. Youssou Ndour Youssou Ndour. waaw mu gën laa neex lan moo tax que combat la boo xamante ni xam nga dañ ko jël ñu bëroon tiitoon ci comprendre nga waaw jàppoon ni combat boobu duñ ci génn yàlla def ñu génn ci après bi mu ci génnee nag damaa kontaan waaw moo taxoon combat bu neex ma trop wax dëgg yàlla parce que defuñu woon favori defuñu woon dara ci làmb doon. alors nga génn ci ay ay yu ama am solo. gars yi ci. notamment bi ngay ñëw sa combat ak Jokal maa ngi ci doon waxtaan ak sama coach Mame Less Mame Less bu ñuy wax mu ne ma combat boobu moom la mel moom mooy favori donc joxoon na la moom favori avant ngaa bëre at bi ciblé def baatal coach. Mhm. alors nan ko ko waajalee ak lan moo tax nga parce que loolu rek lañ mënoon defa ah. Mame Less aussi maa ngi koy nuyu au passage parce que moom nit ku baax la wax dëgg yàlla. waaw moom làmb la moom làmb la wax dëgg yàlla te man dama ko yàlla xam na loolu comprendre nga làmb du loo xam ne dañ koy préparé pour man dañ koy pare làmb ji dañ ko pare woon du yàgg yàlla def antu sotiwul comprendre nga après bi mu ñëwaatee nekk jugewuñu woon ci li ñu nekkoon ñu woon ci li ñu nekkoon rek topp suñuy entraînement def li ñu war a def waaw xëy na bis dina ñëw ñu ne ñu bis nangam ngeen ñu bëri ñu nekkoon ci loolu di préparer ba yàlla def combat bi ñëw waaw ñu am gëm-gëmu def li ñu waroon def. def ko mhm. lépp ba mu pare ñu teg li ñu war a def dem bëre yàlla may nu ndam ah. c'est ça. yàlla may la ndam buy génn ci. Mhm. caatu yoof. ah mu ne lan lan la wax. <laughs> ma ne lan moo tax nga koy dumboo yi lan moo tax nga koy dumboo yi. ah non je sais pas <laughs> xaw ma sax. mais gars yi nee nañu boobu moom mooy combat njar ndéem. mooy combat mam ma jàndee boo koy wër da ngay jël mm. ñaari ndaanaan Mama Lamine ngay boole ko euh, ki nga xamante ne moom mooy caab yoof mm. ñu ñu <laughs> lees moom nu mu def noonu la comprendre nga mais man dama am staff ñu nekk sama ginnaaw comprendre nga du ma dugg ci loo xamante ni du sama mbir du ma wax ci loo xamante ni du sama mbir ñi ci war a wax dinañ ci wax ñi ci warul wax duñ ci wax man aw ma wax man buñ ne ma woon suba suba suba ma dem bëri ak caatu Diop mais je suis comme les autres dama am ci loo xam ne dama ci nekk lépp lu may jël dama koy xam. lépp lu may xam comprendre nga. Hmm. caatu Diop mbër la mais nag waaw làmb nga ci suñu kanam nañ dem rek. làmb ngi seen kanam sànq dama dugg dama ko dugal sànq mu ma mu ne ma bu ma jël après te mu jël léegi. <laughs> waaw la xam nga borom bitig mbagu boo gis magasin moo ne ci xolam waaw moom xëy na bëgg a man jaral na ko lu ne dëgg la mais man instant bii bëgg naa bëreeg ñoo xamante ni tey dañ may may sens man mënutuma bëreeg benn morom. Mama Lamine fan nga fan chance. mais mhm. ban catégorie ngay xalaat ban catégorie nga foog ne tey ñoom nga war a mën a bëreel mu mën a bëreel làmb la booy bawal sama adversaire la Dieng Kayre sama adversaire la. comprendre nga Tyson 2 du ma ko fi bàyyi sama adversaire la comprendre nga ñooñu sumay adversaire lañ bu mm-hmm. ñu samay adversaire tax maag làmb mm-hmm. Garga 2 sam maag moom sama combat moom dafa neex comprendre nga marle combat maama Lamine marle loolu njariñam la njariñam la waaw comprendre ay làmb neex ngeen di di wax làmb yoo xamante leer na leen fii bu fukki at juróom bu ngeen ko waxoon taxaw ok d' accord. ok mais ma ma ma la ñu gis ni. Euh, Lansar ñu ngi doon waajal benn combat bu neex muy diggante Papa Sow ak Siteu sa doomu ndey. ñu gis ni combat boo xamante ne làmb la doon sauvé fi mu toll woon. Mm-hmm. ñu nan la nan nan ngeen ko doon waajalee combat boobu. waaw li ñu ko doon waajalee mooy comme liñ la liñ lay wax rek ñun combat du rëy ci ñun bis du rëy ci ñun waaye bis du tuuti ci ñun ñun foo ñu fekk. entraînement moo ñuy boole bu ñu tàqalikoo ku ne sa kër nga jëm comprendre mais entraînement bi ñu doon préparé pour Papa Sow ba léegi bàyyiwuñ ko ñu ngi noonu ñu ngi ci lii ñu ngi ci loolu ba léegi. Mm-hmm. parce que dañ ne ndox du bàyyi yoonam. waaw nit bu xëyee nag saagam lay gàddu dem ca bureau ñun làmb mooy suñu métier mooy suñu mooy suñu culture comme ni ko gars yi waxee mais ñun métier lañ ko def amuñu benn temps bu dul entraîner. Mm-hmm. entraînement mooy suñu liggéey yàlla nag. mooy xool lu ko neex mu dogal. Mm-hmm. mais ñu ci liggéey boo xamante ni ñaan nañu yàlla dat am ñu ñëw bëreeg Papa Sow daan ko. mais bëreeg Papa lu yomb parce que topp yi naan bëreeg Papa Sow daan ko loolu da ngay waxee lu borom rek mais da liggéey luy daan Papa Sow. Mm-hmm. te ci tànk boobu lañ nekk ginnaaw liggéeyee koy daal nañ liggéey ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. Mm-hmm. ci Mama Lamine bu ñu la indi doon góor a soog avance góor a soog da nga koy jël. avance góor a soog nag dama koy jël non man amu ko may ragal ci làmb wallaahi <laughs> ay góor a soog ak Franc ak ñoom ñëpp la wax amul ku ma fi bàyyi. mais yàgg Franc mbir la de. njar ndéem la mais dama ne la amul ku ma fi bàyyi. su may mbokk buñ paree rek pare na. yàgg yàgg Franc njar ndéem la de Mama Lamine. loolu boo demoon Zouave di ko fa jaay séeréer yi dañ koy jënd <laughs> ndax boobaa damay dekki. def mbappatu séeréer. mais mais nag Franc nag ci bébé nag est-ce que Franc du du la a soog man a soog laa indi a soog laa indi dama laa man dama laa dama a lijjanti sax avance avance avance Franc bi nga waxee Franc sama yaram da doon daw. xam loolu lijjanti ko mu ñëw. ah. pare nga pour lijjanti ko yow. waaw mën naa ko lijjanti kay. waaw joxe ma joxee avance bi ba ci sëñ Bamba ma dem ci may ga reeru suuf. <laughs> ah mën na nekk yow daal pare nañ jox naa la lépp yow dirigé loo defee man pare na. voilà maa ngi doom Pamles Pamles xam naa su ma ko waxee loolu yaram du nelaw dañ si guddi moom <laughs> kooku làmb la. <laughs> kooku làmb la wallaahi lu mu la bindal téere mais nag non yow moom macha allah wax dëgg yàlla. da nga bokk ci mbir mi te xam nga. lii neexal cin bi yaa ngi ci biir. entraînement laa jógee nii xoolal. entraînement laa ah. jógee su meegoogu ma. pour te dire quoi gis sama baat ma sol. bien. entraînement ma la ñuy entraîné ak couvre-feu bi ak koor gi noonu koy rek. <laughs> kër gi yaatu na am na suuf <laughs> te xam nga ni bu doon pantre la sax mun nga fa entraîner pantre pantre. kon yéen kon yéen ak koor gi ñii ni mu yenn mbir yi bi ba tey. non bëgg lu ñuy def nga daan ñu ay lan bu ñu ne woon couvre-feu dix neuf heures dix neuf heures boobu noonu mënuñoo dem fenn mais dinañ entraîner suñu kër. d' accord d' accord d' accord am na solo. alors ñu leen di fàttali euh, samedi samedi bu soobee yàlla vingt trois heures euh, ki nga xamante ne moom moom la ñu war a fas lool. Mhm. ci en direct live euh, tàllal loxo mu nga nuyu ko. Aliou. ngi nii sàngu gis nga ko. Aliou Ndiaye. waaw ngi nii. Abou Ndiaye. Abou Ndiaye ngi nii. gis nga nous sommes des frères nous sommes des familles comprendre waaw adduna amul solo adduna amul solo yaa ma gën a xam. leeru yàlla gi la confinement bi xam nga jaamu yàlla rek tëdd. koor gi moo ko indaale quoi koor gi. ah. koor gi moo ko leer gi gisoo koor gi moom macha <laughs> maa ngi lay bëggee bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan. gars yi commencé ma waxal sa ngeen bëgg ay waxu Ada Fass te def leen ma nàkk ma wax dafa gee. teru <laughs> Ramadan bi yaa ma gën a xam koor gi guddi gi moom aw ngay. gars yi gars yi commencé ma waxtaan sa gars yi naan ma Ada Fass mais d'accord ba tey amul problème ah alors Tapha Tapha nan ngay dundee koor gi confinement bi entraînement yi noo ko dundee. waaw dañ koy taqale rek xam nga loolu mënul ñàkk daal parce que sport moom mënul ñàkk si ku nga xam te ne mooy sa liggéey. waaw mais xam nga da koy fexe alterner ak koor gi rek comme koor gi mooy loolu ak confinement bi. Mm-hmm. ngay fexe profité di def lu yam rek saa yi kenn def la nga demoon def moom kenn mënu ko def saa yi. c'est moom maintenir sa form ba yàlla leeral affaire yi gars yi nekkaat si lañ nekkoon. yeah yeah amiin. waaw te waa mbër li ko dugal ci làmb mën naa ni bëgg-bëgg la. Mm-hmm. ak yàgg leen fekk seeni entraînement. seen i combat ñu ñu yàgg dem si kaar yi di dem saat xam nga nekk ci wetu géej gi nag géej gi jege ñu lool ñu nekk loo xam dañ ko fooyee bi ñu nekk lu ndaw ko si dund ba da ngay affaire bi mujj doo ko mënati bàyyi daal ba dem ba ñëw commencé ñaanal ba ba tàngat la ko la paa bi ak waa gàll bi ne nañ ko bàyyi mu bëre ban période la dem naa ba bi ma bëree premier combat arène la paa bi doo nag nangu ni moom dafa maa war a bàyyi ma bëre ba bi may bëree mbapat yi ba bi may arrêté si mbapat yi paa bi dafa dem na ba mujj du du sax bëgg a gisee ma am na ay jamono yoo xam nekkuma sax si kër gi damay balaane nekk si yeneen i kër. xam nga rek boobu xam nga bi may doog bàyyi jàng la xam nga nekk si yeneen kër gi ànd ak yeneen booy bu toog sax sama gaale su ma woowee bëri ma dem gaale benn booy ngeen mu dem après dem. bu mujj gars yi paa na ma nag ñëwal nga toog si kër yi nga nekk ak. alors Tapha. waaw. alors mu dugg parcelle nga nekk parcelle nekk xale yàlla mooy la tuur parcelle nga nekk raar nga moom su ma tur moo hmm. que bu ngay xale ay ko doon dama ko bëri lu fi nag mbapatu quartier yi nii ngay gis te mbaparu parcelle fii Géejawaay Yaraax Dalifor Wakaam fu ne dama fa demoon di bëri ji ay mbapar ay am na champion loo chaude bi nekk si mbapari fii tëgal na ma mbapat ba taay Yaraax Kaw mm-hmm. Cissé Kaw Cissé ma mbapat Dalifor si ay comme lamb koñ yooyu drapeau naxaax laa si jëloon dama sax sama koñ am na benn grand bu ne ma yow booy drapeau yi ngay yor di jaar fii yow yaa ngay jël ma ne ma war na bu si nekk maa koy jël <laughs> nga jóge ci victoire combat bu bu compliqué recours recours des victoire combat bi xaw a mel ni lu suuf xam nga mais da nga xamoon blessure bi ngay wala bu demee noonu. kii boobu <laughs> commentaire. <laughs> alors ci biir non xam nga rek man bëgguma ñu ne dama abandonné wala dama xam nga am na loo xamante ni man dama ko doon bañ. mais gars yi par la suite bu ma ñëwee xamal nañ ma ni gars amul ay abandon yooyu boo gaañoo tee da ngay arrêté sa làmb parce que boo seetloo ci biir la saa yi moo koy wëndoo mu di ko dóor la loxo bi dàmm. d' accord d' accord. xam nga te si biir bi la biñ buñ la woowaatee man dama waroon signaler loolu rek affaire yi mooy loolu mais bugguma ay ñu dafa yàq làmb ji mooy xale mooy lii mooy laa ma ne non bàyyi ma sëgg bëre rek mooy loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. mais blessure moom kenn bëggu ko kenn ñaanalu ko boppam parce que dafa metti ba pare euh, li ngay toog war ko faju rek yaa ngi am looy perte. d'accord d'accord loolu. Hmm. alors euh, jël Ada Fass lan moo tax Ada <coughs> la rek parce que tey am naa am na ne am rek. dina am dafa war a bëreeg boo boo xamante ne moromam la et tout nekk di wax man tey. ma ne leen man xale laa adversaire yi may bëree li si bëri ñoo mag xëy na teel a bëre xam nga am ci tur boo xam te ni moo moo tax gaa yaakaar yow xam nga da ngaa yàgg si làmb et tout man 2016 laa dugg si làmb. 2016. Hmm. mais tey def ay programme moo tax xëy na mu demee noonu. mais comme que hmm. dañ ne jeune laa war a bëre la suma morom et tout léegi am na si yoon te liñ umpale woon mooy sama début carrière ay combat jànk fighting yooyu noonu. daa leen bëgg a may ñu xam. yaakaaree bu yaakaaree ne daa am combat nii rek no mi ngi naa boppam combat sérieux la am ku ci nekk da nga am combat bi nga xam te dafa mat combat man du ma xeeb du ma sous-estimer du ma damay dem liggéey lu wóor ñëw. surtout d' accord d' accord d' accord xel Fallou Ndiaye euh, le grand promoteur daal di tëgg tëgg affiche bu nekk boobu. alors ñu ñaan yàlla euh, Covid 19 bi jóge fi ndax combat boobu euh, mën a sotti ak yeneen ci toog alors euh, mm. waa parcelle doon waajal ñaari événement benn bi Siteu Papa Sow la benn bi Ama Baldé Modou Lô mën nga ko gisee. la làmb ju mag a mag a sax. Mm-hmm. parce que ñoom ñaar ñëpp ay champion la ñun ñoom ñoo ñu supérieur si làmb. Mm. li leen mënoon rek. mooy lan xam nga lamb yooyu man li ma si mën a analyser lu bëri parce que ñoom ñaaree ndaanaan lañ te Papa waaw gaa yi xam nañ ko gars yi xam nañ bu baax bu duñ umpale Papa Sow mënuñu ko umpale sax ci lamb mënuñu ko umpale mais sport moom sport de combat ku nekk da ngay waajale kii waaj kii waaj ngeen ñëw mais Papa Sow ñaanal moom lañ dëkkal sunu grand la sunu xarit la sunu waaw lépp la parce que kooku dafa baax barki Seydina Muhammad dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam Siteu aussi tamit ku baax la gentleman la góor yàlla la mais làmb affaire la koñ la man parcelle laa dëkk damay ñaan Papa Sow ndam Siteu tamit champion la moo xaw si nañ jàmm ñun ñëpp yaa ma gën xam ne Papa Sow laa dëggal na ko yàlla may ndam ok ok ok alors Siteu Siteu organisé na fi benn open press daal ci invité nga daal ñëw teewal affaire yooyu noonu quoi nga ñëw teew rafet euh, affaire nice alors Euh, mu war a bëreeg sa comme ni nga ko waxee noonu cent pour cent parcelle donc Tapha Tapha combat boobu diis na ci yow de ah non pourtant diisul parce que tey man Papa Sow laa dëggal man surtout si boppam bu ma ko faralee sax <laughs> si boppam bu ma ko faralee dina ne kii seytaane la mais du tee ku si nekk li nga sëkk moom ngay sëkk moom man si boppam ñaan naa la làmb dem ba boole maag sita moomu te làmb yooyu làmb yu extraordinaire lay doon na xam nga ku si nekk làmb mbëru mbëru gox nga mais tey Siteu bu amee bis bu xam ne MMA la ñun ñëpp mbëru Sénégal yi waroon ñoo ñëw si ginnaawam soutenir ko. bu ñëwaatee Sénégal bu ñëwaatee Sénégal lu tey adversité bi lañ koy wax xaw ma lu si yàq dara bu ñëwee bu bëree ñun ñu boole suñ doole ñaan yàlla mu am ndam si kawam. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.